bëggoon ñu taxaw as tuut nag euh, ci euh, coach. Mhm. Aliou Cissé boo gisee tudd ma ko sànq ci liste bi. dëgg la c'est parce que euh, je gardais le meilleur pour la fin. coach Aliou Cissé loolu ko mën a waxal bu ma oustaz Maodo. waaw kay gis nga gis nga objectif mooy li ñu doon wax rek bit bi ñu doon wax léegi nii gis nga fexe na moom ba fa jëm. mu bu ko daanaka mën naa wax ne suñu borom yóbbu na ko fa ci sur le parce que 2015 la jëloon équipe ba léegi. Mm. te 2015 ak léegi lu mu gàtt gàtt gàtt moom juróom-ñaari at yàlla yi moom xam naa ne bu ko matul ëpp na ko mbaa mu yem ci képp mu am ay jamono yoo xam ne yi critiques yi bari woon na lool ci moom waaye la ma seetlu ci si sa mooy nam meloon démb ak bërki démb ci la nga xam ne moo di yéeneem ak doxaliinam coow la la muy bari bari bari bari bari ci moom gisuma mu soppi doxaliin wala mu ébranlé ko tiital ko genn tiital goo xam ne yàq na dara ci ab liggéeyam tolloon na fi jamono yoo xam ne ñun taskatu xabaar yi pour ñu am ci moom accès lu jafe woon la day ñëw def conférence de presse nga laaj ko ay question tontu dem na yoonam. Mm. doo ko gis ci plateau doo ko gis ci dara. am na nag staff bu ko staff bu ko waroon boo xam ne bii. Mm. ñoom la doon communiquer lañ ko wax doy na ko. am na benn jour moom ci boppam mu wax ne. Mm. moom moom moom moom moom moom Cissé ah mu wax lu am solo. mu ne ma mënu ma wax ak ñëpp parce que a ngi parce que ñëpp a ngi wax. léegi loolu moom mooy fokk ju dégloonte. léegi nag loolu lépp yàlla dimbali na ko ca xas nañ ko fi dem nañ ba mu yàgg sax ñu naan bu deful lii dañ koy dàq nangam ak nangam parce que Afrique ci boppam. nekk fi entraîneur moo jafe. surtout entraîneur boo xam ne bii yéen a bokkoon équipe bu ngeen def léegi nag sax réew yaa ngi tàmbali di Afrique yaa ngi tàmbali di yow di wut ay noir comme ñun di entraîner suñu équipe propre équipe. Mhm. et d'ailleurs loolu bokk na ci éléments yi nga xam ne li tax Afrique di war a gën a nangu boppam ay lijaasa ci wàllu entra entraîneur ku mel ne Aliou ak yu demee noonu donc équipe bi tamit wax dëgg yàlla résultat yi nga xam ne Aliou Cissé def na ko ci su fekkoonte ne dañ koy noté 20 sur 20 ma ne kon am na 18 virgule 5 pour cent. macha allah te loolu nag vraiment c' apprécier c' saluer. Mm. mais aussi ñi nga xam ne itam ñoo yore fédération sénégalaise de football. Mm. ñoom Senghor ak ñoom Ablaye Sow et ñooñu tamit def nañ ci seen loxo ndax léegi li ñu tuddee seen bopp mooy manko mm. jëli ndam li mm. waaw euh, dañu wax ne jamaa mooy raxma maanaam mbooloo mooy indi yërmande mooy indi résultat mm. naturellement avec l'appui de l'État mm. ñu jàppale leen ci avec le président de la République mooy yëpp ñu teg ko ci seen loxo wax dëgg yàlla gàcca ngaalamaa ñoom liñ man rek ñoon ñun mooy ñaanal leen ñaax leen ca kanam yàlla yóbbu leen fan gën a kawe. jërëjëf Oustaz Maodo Faye Serigne Mbacké Sylla coach Aliou Cissé. waaw moom day jàmbaar la de wax dëgg yàlla xam naa nag euh, euh, sénégalais yi ameel nañ ko njukkal moom itam ameel nañu njukkal ndax dafa am sens ñu may ko ñu may ko temps maanaam jamono yi ñu koy critiquer critique yu méttee méttee métti bu ñu ko daan def ay coach dañuy gaaw jëlee leen. yaa ngi snap affaire non non c'est bon ci la bokk na ko na ko jël na ko la si na mooy woon président Macky Sall waaw si na bal si na bal kii si na bu baax moo gën sa yi ngay def nii yi ngay wane yëpp yooyu luy loolu foofu fan laa tolloon <laughs> booy laay la quoi Aline Cissé ah waaw kay <laughs> si na bal li ma bëgg a wax mooy moom ci boppam xam nga may nañ ko temps Nicolas boo seetloo ñun dañoo dañoo gaaw ci diw xamul dara na fi jógee hmm. te léeg-léeg daa mel ni nit léeg ñu may ko temps mu jéem. Hmm. loolu baax na. Hmm. man li ma gën a kontaan loo mooy xam nga suñu Coupe d'Afrique bi njëkk a gagné. Hmm. yàllaa ngi dogal ñu gagné ko ci euh, Aliou Cissé nekk suñ coach. maanaam tey buñ jëggaane woon ab coach mu ñëw indil ñu ko dana neex. waaye lépp lépp nekk 100 pour cent sénégalais moom loolu bokk na ci li nga xam ne neex na lool hmm. beneen bi ci des itam mooy nit ku am mérite la ndax xam nga ñi àndaloon ca 2002 di football hmm. bokkul woon hmm. ci ñi nga xam ne boo koy xool da ngay xam ne kii bëgg na équipe bi maanaam daan na ànd ak xadar joo xamante ne moom lay àndal joo xam ne xadar jooju ba nëgën ni damay jàpp ne mën naa feeñ ci ay doxalinam léegi nag ndax euh, yu ci baree bari loolu a ñun huitième de finale léegi nag àgg na fa fi mu ne li muy def mooy fàtte loola tañ euh, tàmbaliwaat sumbaat leneen waaye loola moom àgg na fa vraiment nit la koo xamante ne nii euh, mérito na ñu ñun ñëpp ñu ko bu a baax a baax ndaxte indil nañu ay résultats yu bari mm, jërëjëf si la man dinaa j'irai plus loin Aliou Cissé du ghanéen hmm? du guinéen du malien du du éthiopien mm. Aliou Cissé sénégalais la il est arrivé des moments yoo xam ne. je ne suis donneur de leçon de rien du tout nag. suma xalaat ak suma gis-gis bu gàtt wax. il est arrivé des moments yoo xam ne nit nit rek la Aliou fii la am ay njabootam xam nga am na yoo xam ne boo koy dal ci nit di ko dal ci nit euh, da ngay xalaat aussi euh, li mu yanu déjà. Hmm? mais aussi li topp ci ginnaawam. xam nga. et euh, comme ni ma ko waxee nit nit rek la il peut être touché quelque part par rapport ak certaines remarques wala affaires yooyu noonu surtout sachant que quand même gis nga dem damay wax dama dañu pare ci victoire bi ma am ambiance bi ñi ñu nekkoon noonu benn grand ñëw taxaw ni waaye mais euh, Aliou Cissé dafa am chance quoi moom daal chance na xuus na xuus na ba ba àgg si fii nii mais. Toi, tu me parles de ça. Où est le mérite Toi, tu ne penses même pas que le mec a du mérite quand même. Il a dû bosser pour en arriver là où il est. Toi, tu penses qu'en fait, c'est juste la chance qui tombe du ciel comme ça. Que Aliou Cissé day xuus nii rek yàlla di o yónnee ay étoiles nii rek muy dem noonu daal moom daal liggéeyu dara daal dafa toog rek. non mais vraiment benn instant da ngay xool gars yi mais tu te poses la question mais pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas reconnaître en tout cas ak ñi ñu ko sañ wax le mérite de l'autre le mec quand même dafa am fu mu jógee ñun fekkee nañu dafa am fu mu jógee am fu mu jaar mu traversé ay épreuves yu bëree bëri bëri mm. bu ak ses filles c'est du mérite point barre la chance la n'a rien à voir ici il faut oublier ça ben mais c'est vrai xam nga xam nga xam nga li nga wax ni dëgg la dafa am doomu aadama yoo xam ne gis ndamu seen nawle. Mhm. am na ci ñoo xam ne naturellement dañoo négatif. am na mhm. nit ñoo xam ne ils sont naturellement. ñoom lu baax ma mënuñu koo gis fenn te teguñu ca. Mhm. lenn soow mi lu mu ñuul ñuul ñuul ñuul sa yoon daal nekkul sama drapeau. non ni drapeau bi tegoo daa a benn këriñ teg ko ci soow mi. pour mu ñuul. pour pour pour am luñ ca teg loolu nag feebar la. ñooy nee naa la ba tey am na ñoo xam ne dañoo war a dem tëdd faan <laughs> mais dëgg da ngeen maa nangu la déglu parce que am na yoo xam ne defe nañu nit. kon nag ko yaakaar dem fan ndekete ka ko war a yóbbu moo ko war a jiitu waaw waaw mooy mooy semence gi waaw léegi maanaam damaa bëgg a wax ne comme li li li li li Nicolas wax léegi nii. Mhm. dafa am ñoo xam ne ñii mënuñoo gis ci seen nawle lu baax. dëgg la yàqeeti laa nag ki yàlla yóbbu ba fii nga amoo loo koy taxé lu dul ne. changé ko changé ko fa yóbbu doon tëjëx tëjëx rek lii ba dem te koo xam ne kii football na 2002 comme ni ko Mbacke waxee léegi borom xatar la am na jom au moins entraîneur bi muy def jàng na ko même bu doon ñaari fan it jàng na ko am na ci lijaas yore équipe jox leen coupe ah mois de février waaw coupe d'Afrique mosuñu ko am lépp le Sénégal et le Sénégal yow nga ñëw fii gagné coupe d'Afrique et puis avec la manière dañoo football gagné dem série de pénalty ak Égypte dóor ko Sénégalais yëpp kontaan nga ne waa ji daa am chance. Hmm. waa léegi moom waa ji waaw moom lan mooy chance am moom. merci toog ci kër gi di xaste. merci waaw moom loolooy chance am. ah waaw kon waaw kon kon na toog foofu. <laughs> li nga wax ni Nicolas ah, lu am lu am solo la xam nga critique sax moom bu jàpp naa ne feeg mi ngi doon critique bu positif. bu jëm ci liggéey bi. loolu Alioune bu koy yokk waaw bu ko bañ ko ndax man ñi ma dégg ñuy wax fi ñëpp nee nañ koy déglu euh, hmm. yi jàll ci rajo yi laaj ah, réseaux sociaux yeeg di xool yëf yi hmm. li bon kay mooy euh, euh, maanaam assorné wu rek ci kaw waa ji te ñun loolu sénégalais dañoo yomb ñun maanaam képp kuñ dénk suñ yëf boo moytu duñ la duñ la duñ la mayeeti jàmm maanaam nit ñi dale ci sa kaw dafa metti Aliou Cissé moom li ñu ko critiqué critiqué wuñu ko fi sax tubaab bi ñu daan dénk équipe bi te pourtant moom ci boppam nag war nañoo rafet njortu ne ñun ñëpp man de xam naa ne yaakaar naa bëgg naa Sénégal gagné mais xalaat naa ne moom moom a gën a bëgg Sénégal gagné parce que moom da cee boole loolu da dib liggéeyam mhm. mu doonub sénégalais comme man ba noppi ñu ko ciy fay ba noppi moom itam loolu di ko yokk ay ay numtudati mhm. yàlla xam na ne bi Sénégal bi ñu égalisé démb Mm-hmm. ma gis ko mu daal di anière noonu xaw a taxaw dama koo yërëm mm-hmm. maanaam booba dama mel ne man ku nekkul Sénégal di seetaan ab sénégalais <laughs> maanaam moom moom ci boppam dama koo dama koo yërëm ba pare dama koo ñeewante léeg-léeg it suñu sóor yi sax léeg nit bu ci ratee ab bal wala mu def contrôle boo xam ne contrôle bu baaxul la mm-hmm. man man damay damay tiit ndax damay xam ñun niñ gaaw a euh, niñ niñ gaaw a ŋàññi nit ak niñ mën a dale ci kaw nit yow man ngaa sori kaw ba doo ko yëg mais sa njaboot gi suuf dañ ko dañ koy yëg euh, te loolu ñun sénégalais yi Aliou mucc ci Euh, Ismaïla Sarr mucc ci Iliman Ndiaye mii ñuy tagg di ko di ko tàccoo ñaari loxo mucc ci mm-hmm. ñun ñii di wax ci rajo yi sax muccuñ ci maanaam cest à saa yu nit ki di di def benn mbir mm-hmm. am na koo xamante nii du gis effort yi mu ciy def mm-hmm. moom moom lam ca waroon a def te defu ko loola rek lay gis galu euh, euh, mat bu dee football bi nag Sénégal ñun ñëpp ay coach lañ xam nga looloo daa metti Aliou moom kenn ëpp ko liggéey mm. ndax dañ koo dénk loo xam ne ñun ñëpp dañoo jàpp ne ay coach lañ comme moom kenn ku ne da def sa classement def say remplaçant mm. ñenn ne ci réseaux sociaux ñoo xam ne ay journaliste sport lañ yoo xam ne doo xam ban problème sax lañ am ak Aliou Cissé hmm. dëgg dëgg da ngay gis yenn yenn façon critique yoo xamante ni du critique yu positif hmm. du critique yu defar mais asarana wu ci jëmmi waa ji la hmm. te loolu amul sens te loolu amul sens du ñu jëmale fenn gis nga gis nga joueurs yi nekk ci équipe bi di football onze joueurs yooyu comme ni ko Mbacké waxee léegi ñoom ñiy daw di ñaq ñu leen di padd léeg-léeg ñu blessé comme li dal sànq ñoom bëgguñu victoire waaw ñoom ñoom xanaa ñoom daal bëgguñu waaw tamit bëgg nañoo gagné daal bëgguñu dara daal ñoom ñun ñi nga xam ne ñun dawuñu ñàkkuñu toog ni naan suñu attaaya naan kii xamul tous nangam ak nangam door nañ ko fii waaw léegi même bu dee ñoom dañoo choisir football xanaa football kat bi ne ci terrain bi bi ma demee bi ma demee football yi hmm. Eh, ah, waaw ma def benn ma def benn déglul Maodo ma def benn attaque daw ba ca camp yi mënatumaa dellu si ñu naan ma retour oustaz retour man leen retour daa yombe noonu yéen taxaw ci kër gi naan retour ci laa bàyyi nag <laughs> yow nga ne da ngaa demoon football yi waaw waaw damaa monté waaw xam nga booy doori ñëw monté bu njëkk bi da nga koy assuré waaw të të të ba ca kaw <laughs> ah gars yi def contre ñu naan ma retour retour bu gaaw ba leen bu ma leen faalewul mu doy yéen pour nii la yombe retour mais ñun tam dañuy toog ci kër gi naan non xoolal xoolal xoolal mooy li ma wax léegi nii quoi c'est-à-dire que aller retour yomb kaay am nga aller retour ci terrain sama mbokkum pël mi ba muy bokk soog waa ji dañ ne bëreet waa ji ko arrêté ni ko tépp course bi ne ko wasi wasi <laughs> mu ne waat bëreet waa ji door ko góos course bi ne ko wasi wasi waaye bi droite bi ñëwatee da ko ne mii waasaan taawaay <laughs> <laughs> macha allah Mbacke jërëjëf <laughs> sas jërëjëf am naa li ma dese ci temps bëreetul ñiy yéex a dugg si ah dommage pour vous euh, yu neex yëpp rëcc na leen ñi xam fu muy neexee xam nañ fi ñu koy kal saa su ne ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëmati encore une fois euh, yónnee suñu ay ondes positives euh, toute la team toute l'équipe waane itam le coach particulièrement li tax ma wax sànq ne fakastalu mënta ñàkk c'est-à-dire il faut qu'on prenne en compte aussi que demain lu mënta xew aussi ça n'enlève le mérite des gens. voilà il faudrait pas que demain leneen xew. safar wala affaire yooyu tout de suite. on que du négatif. Il faut toujours rester positif, quelle que soit la situation. on anticipe en disant que on ose espérer que tout va bien se passer, mais tout ne peut pas tout le temps bien se passer non plus. Il faut qu'on intègre a koy xam. mais oui sa fan xamuñu loolu. <laughs> ñi leen yóbbu ñi leen war a yóbbu fan it xamuñu loolu. waaw ah, waaw mooy délégation bi nga mais en tout cas ñu ngi ñu ngi big up bu baax a baax coach Aliou Cissé di ko yónnee euh, sunu ay encouragement et nos nos nos nos pensées il a besoin de saison ondes là te buñ ci booloo rek lépp mën na cool mën na fine mën na nice pour sunu coach Aliou euh, Aliou Cissé